fatal lii masque anan la gis nañ fi or gis nañ fi argent bi anan la <laughs> est-ce du en valeur <laughs> mais fatal lu tax nga ma dama yaru <laughs> lu du ma la lu waraloon sa teewaay fii ndax tamit quoi qu'on puisse dire bokk nga ci les actrices phares de valeur tey sa intégration série nan la demee au fait euh, loolu xanaa wax waxaat la rek mais ñëpp xam nañ sama intégration ci série bi nu mu que dañ ma contacter sama profil neex leen ñu gis ne war naa mën a apporter dara ci ci ci série bi après ma ñëw def ko. avant loolu sénégalais yëpp ñu ngi la xamee ci li nga xam ne moo di série Virginie mu nekk série boo xam ne ado la euh, pour les ados la du moins nga joué ci sa partition mu nekk lu am solo ñëpp daal di apprécier. waaw waaw. waaw noonu la fa demee rek parce que lépp loo gisee commencement bi dafay xaw a métti tout mais ça va quand même voilà. d'accord mais ci biir loolu nag nga daal di ñëw intégrer valeur jouer ci rôle boo xam ne bëri na xale jigéen yu ko nekk nangu jëkkëru jàmbur yi ba pare nag jël boobu takk seen bakkan di diri rek lu waral loolu. Euh, man man man je suis contre parce que man neexuma may gis nit buy toroxal jëkkëru jàmbur parce que damay xalaat fu ñu defoon sama yaay wala fu ñu ma ko defoon suba ndax dina ma neex du ma neex jikku rafetul quoi. rafetul ah, tey maanaam donc ko ay joué ba pare mais li yow leer na li nga joué tey rafetul neexu la te buñ la ko defoon ni du la neex. non du ma neex franchement buñ ma ko defoon du ma neex rafetul neexu man mi koy joué sax xam naa ne que voilà. Mhm. ça se passe ah, waaye ba tey taxaw rek ci question d' actualité mënut a ñàkk sa digganteeg Ngaaka Blindé ah, tey ñu bëri nag nee yi jeex na ñii ne yéen a ngi ci ba tey la ci la kii di la ko dee yow <laughs> euh, ngaaka sama sama papa la sama mag la sama xarit la yàgg na loolu bees la xanaa non yàgg na peut-être war nañ ci béy nii dafa am ngaaka dafa may gëllu kooba yu bees yoo xam ne dañ lay woo di la menacer ki yooyu ki yooyu ah, tungi ne di teew ñu ne taal wax ñu rek xam nañ lépp loolu naa la ku ñu menacer duñ ma menacé te dama sekkut ak moom du tax ñu may menacé nañ dalal seen xel. dalal seen xel du yàgg ah, bi ñu xool parce que lii dafa doy waar lii dafa doy waar gis naa fi masque en or en argent en diamant mais bii koy wax kon <laughs> en mode nan la lii. Euh, vu que Viviane moo copier coller. rek mu jeex rek mu jeex. loo nar ci saal lu neex waaw comme d'habitude rek. lan la ñu mën a xaar ci Fatel ci yeneen projet yu war a ñëw. incha allah maa ngi ñëw maa ngi ñëw ak clip bu bees maa ngi ñëw ak son yu bees incha allah rabi bu neexee yàlla. Uh-huh. ci biir loolu yow it danseuse nga est-ce que tamit di def di fecc boole kooku nekk actrice yomb na. yombul mais lépp c'est de l'art hein vu je suis danseuse actrice et modèle ak lépp ak lépp man. may xorom. <laughs> yaa xorom ci biir cin. may xorom ci biir cin. merci beaucoup ma chérie. vous aussi merci. merci.